mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM nii lañ koy daal di defee rek dimanche bu jot si fi nga xam ni moom moo di ci émission Rewmi FM émission gox bi te nag ñu am ci mbegte bu yaa rek war ci dalal ki nga xam ni moom moo di Serigne Saliou Ndiaye nekk rek président mouvement sunu gaal naat. sunu Sénégal naat ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ci nu ñu nangulee invitation bi. Euh, jërëjëf Memba maa ngi nuyu euh, waa Rewmi FM. Mhm. di la nuyu di la remercier ci invitation bi. Mhm. di nuyu internet yi ñuy seetaan euh, à travers le live. Mhm. di nuyu ñëpp di ñuy waa Sénégal. alors sunu Sénégal naat moom mooy li nga jiite. alors tey dañuy daal di ubbee waxtaan bi euh, njiitu réew mi xam nga ni démb ñetti fan avril def na discours bi nga xam ni euh, jagleel na ko askan wi waaye gis nañ ni ci discours bi am na pàcc gu am solo gi nga xam ne réservé na ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ndaw ay ndaw ñi te ndaw nga euh, en fait mënuñu tey commencer émission bi te laaj ñu la ko lan mooy si sa jàngat ci dogal yi nga xam ni walla promesse yi nga xam ni njiitu réew mi defal na ko ndaw ñi waa ginnaaw loolu nga nga baal ma rek ma ma ma ma nuyuwaat sénégalais yi. Mhm. Euh, li fi jot a xew déjà di leen ci mastaw. Mhm. ndax euh, defe naa ni am na lu fi jotoon xew ci fan yi ci ginnaaw. Mhm. ci ñu si am ay yàqu-yàqu. ñu si seen euh, bakkan rot. ñuy ñaan yàlla yàlla xare leen aljana. amiin di ñaanal sunu mbokk chrétiens yi. ci fii ak bitim réew. Euh, précisément Sicap Liberté. ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk seen période de Pâques. Mhm. dañuy ñaanal yàlla nangu leen seen jaamu yàlla. Mhm. nangu leen koor gi ak ñun koor gi ñuy waaj a dugg ñun ñuy jullit yi yàlla dafa ñu ci tawféex. Euh, li nga ma laaj nag am na solo lool lu jëm ci wàllu discours président de la république Macky Sall. Mhm. Euh, je pense que ni depuis un bon moment bokk naa ci un peu ñi président Macky Sall. positivement si ni muy doxalee ni mu koy tegee. mais je me suis rendu compte démb. vraiment euh, euh, président Macky Sall war nañ ko delloo njukkal nag parce ak loo ci mënti dégg. Euh, ci ni mu ni muy waxee population bi gis nañu que depuis première déclaration bi mu defoon le 8 mars. Mhm. ba mu ñëwaatee dafa co dafa dafa mhm. dafa logique. Mhm. dafa conséquent ci démarche am. tey dégg nañ fi muy wax ci wàllu li mu bëgg li mu bëgg ndaw ñi. ci ci ci onze mille emplois yu mu bëgg a créer ak phase deux PUDC. dégg nañ 65000 emplois yu mu bëgg créer ci wàllu euh, ñi war a bale tali ñi war a pavé ñi war a gérer sécurité yi. dégg nañ mu def ay promesses yu bari yoo xamante ne vraiment dañ koy rafetlu. Euh, wax ji kay mooy appli ñu appliquer ko. loolu mooy problème bi fi mu toll nii Sénégal ndax looloo yàgg nekk problème bi comme li may faral di wax depuis 9 ans. moo ngi ci nguur gi. depuis 9 ans. Euh, defe naa ni lii suñu si njëkkee woon. Mhm. heure bi weesu nañ fi Sénégal. Mhm. yàlla nag dogal na xëy na il a fallu ko ay nit euh, maari dem si dee. Mhm. pour loolu mën a am. waaye nañ jo nañ rafet njott ni rek que loolu dina mën a am. est-ce que toog tamit at yu bari ba tey ñu ngi naan ñetti at moo ko dese am du ko dese alors muy joxewaat promesse yi est-ce que li na mel dina dalal xel. waaw dina dalal xel ci mu ne ci weeru mai. dina dalal xel ci kaw ñu gëm ni que Macky Sall président de la République mandat bi moo ko fi dese. parce que nekkuñu ci logique gu euh, mu fiy toogaat di toogaat di toogaat sincèrement nekkuñu ci logique boobu ndax ñun gëm nañ ni que. Mhm. dafa bokk ci tey ñi nga xamante ne ñooy ñoñal. Mhm. Euh, démocratie. te moom loolu lay woote donc ñu gëm ni que benn mandat bi moo ko fi desee mhm. ñu gëm ni tey kon li mu diggee dina ko liggéey muy réew mi li mu diggee dina ko liggéey mooy li nga xamante moo jëm ci wàllu emploi des jeunes ndax ñun bokkuñu ci nga xamante ne ñoom nee na duñu wax ci wàllu troisième mandat ndax ñun amuñu benn lien ak moom politiquement parlant amuñu benn lien ak moom xëy na nag lu jëm ci defar réew mi ak euh, professionnellement parlant am na lu bari loo xamante ni ñoo ngi koy sëq ak waa réew mi. waaw tey posé nga ma question bu ma neex. Mhm. waaw tey comme li nga li nga li nga posé comme question daf ma neex loolu tey suñ ma joxoon ne ma ndaw nga nan nga war a jaaree pour ndaw ñi mën ci gis seen bopp. déjà il faut que ñu ñu ñu ñu def benn benn benn benn benn communion entre bépp sphère buy gérer wàllu ndaw parce que mu ñu tey deer su jógee ne mooy gérer ndaw ñi ñu dem ba ci biir gis ne que il faut que ñu revoiraat communication ñu ne léegi famille lañ ci bokk. ñu demaat ba si biir ñu ne ANP ñu demaat ba si biir ñu ne ministère de la jeunesse xam nga loolu yëpp baax na man tey man deer gisuma deer war a gérer femme ak jeune gisuma cohérence boobu parce que man tey ba ma demee ba gis ministère de la femme ministère de la femme war na mën a gérer femme financement femme yi en même tey su fekkee deer dafa taxaw war nañ fexe parce que DER suñu jëlul euh, seen i seen i force ñoom ñëpp képp kuy gérer wàllu ndaw wàllu FONGIP e wàllu garantie suñu jëlul seen i seen i seeni seeni seen i seeni force boole ko après day am ay bis bi la preuve da ngay jékki-jékki gis DG DER génn ci télé bi wax pour njëkkanteeg ministre de la jeunesse wala njëkkanteeg FONGIP pour wane ne que président que ñun ñoo ngi liggéey alors que ñun dañu war a war ni que ñun population la ñu war a war ni que ñoom ñoo ngi liggéey mais pas président de la république. et tey jii nii concernant la la la stratégie man dama ne euh, li ñuy wax la forte la forte la haute intensité de main d'œuvre li ñuy wax la IMO loolu noonu nañu war a adopté képp kuy teg stratégie tey pour développement wu jeunesse bi. la haute intensité de main d'œuvre nga war a appliquer et la haute intensité de main d'œuvre soo ko bëggee appliquer dafa am fu ñu koy jaarale principalement muy li ñuy wax l'industrialisation gis nga réew tant que tegoo politique industrialisation industrialisation rek moo la mën a may plein emploi tey moo ngi dégg nañ ko ci discours président mu ñuy wax lu jëm ci wàllu zone économique euh, industrielle bu Diamniadio intégré c'est bien beau mais tey su fekkee da ngay jël euh, entreprise étrangère yu bari ñoom ñëw Sénégal investir fii suñu paree jël cinquante pour cent seen investissement parce que ZES loolu la wax jël cinquante pour cent investissement yi euh, ñu yóbbu ko ci exportation ah loolu dina xaw a indi tuuti problème ndax am na lu ñuy wax euh, substitut à l'importation nañu fexe kon ba ba ba combler gap boobu noonu mooy nañu fexe ba ñi nga xam te ñooy nekk ci ZES yi nañ nekk aussi ay ay ay ay ay entreprise yoo xam ne dañ fay nekk di mën a créer ay emploi cinquante pour cent yi naam ñu koy exporter waaye seen i seen i bénéfice day si dëkk bi cinquante pour cent yooyu noonu même su fekkee yeneen cinquante pour yi nga xamante ni tubaab bi ñoom ñoo ngi koy exporter beneen bi ñu ko fi bàyyi mais cinquante pour cent yooyu yi nga xamante ni pour réew mi la tamit bénéfice ba dañ koy yóbbaat seen dëkk donc finalement euh, mën naa ne soixante quinze pour cent mooy dem à l' étranger vingt cinq pour cent mooy des fii ci wàllu zone économique spéciale te tey su fekkoon dañu jël entreprise sénégalaise yi former leen may leen doole dina tey ñu régler problème industrialisation benn ñaareel bi économie bi dina fi des ñetteel bi dinañ créer emploi ñeenteel bi li ñuy wax tey jeunes yi ñuy woo ci wàllum agriculture saa su ne nga dégg ko nañ dugg très bien agriculture agriculture loolu lu baax la mais soo fekkee da teg secteur primaire muy wax agriculture nga bëgg ko dooleel il faut mu am accompagnement muy secteur secondaire bi c'est-à-dire na lañuy transformer li ñuy li bàyyeekoo ci agriculture bi ndax tey jeune bu mel ni man su ma nee damay dem bayaax dama fay jël benn deux hectares damay commencé bay su ma bay écoulé ko ci marché bi nekk euh, Potou wala kër euh, kër Abdou Ndoye su ma leen ko jaayee man pare naa ci agriculture lu dul jaay leen alors que man processus bi war na mën a continuer war naa leen ko mën a jaay ñoom déjà benn benn partie bi war naa ko mën a jël war ko war ko mën a transformer mais tey su fekkee politique gu état tegul bi permettre jeune bi su bayee ba pare dem transformer ko day ça cause problème tey tey su ñu nee la pour cent pomme de terre Sénégal euh, waa Séné India ñoom ñoo ko détenir mais sa waay loolu dafa doy war 40 pour cent pomme de terre léegi su fekkee ñoom dañ ko détenir 60 pour cent yi kon si gàttal dañ ko dañ ko dañ ko partagé entre li ñuy importer ak li nga xam te moom la doomu réew mi di bay mais doomu réew mi li ñuy bay est-ce que tey jotul woon ñu tegal leen benn industrialisation bi leen di permettre ñu mën a transformer pomme de terre boobu def ko pomme ko ay na ñenn ñu koy def mais soo xoolee chips yi daanaka ay résidus la. donc euh, stratégie bi de manière générale du lu ñuy définir ci benn benn point mais lenn xam naa ko suñu jaaroon tey ci industrialisation dëggantaan en en amont comme en aval ñu teg ni ah fii ñuy jóge fii nañuy dem jot naa ni jeunes yi dinañ jóge ci problème bi ñuy dem ci géej gi ñuy dem feneen ak feneen di fa bàyyi ko di defe naa ne loolu du amati waaw euh, ñun euh, bokk ñu déjà si ñi nga xamante ni saa ne dañuy dañuy dañuy xaar déjà ñun dañu gis ni que euh, chef de l'État dafa am pouvoir constitution may ko ko mu war a toog exécuter mandat ñu war ko jàppale si mandaam même su fekkee dafa am parti yu muy échoué échec boobu noonu ginnaaw bu ñu ko ko waxee ci critique bu objectif war nañu mën ko jàppale ne ko lii ak lii nga war a def te tey si li nga wax question boobu noonu ñun tey amaana jataay boobu suñ ci bokkoon. xëy na it dinañu ci informer parce que euh, dañuy faral di di di ci participer. Mhm. ci yu mel noonu. Mhm. jataay boobu suñ ci bokkoon dinañ ko xamal ni que fi mu président. Euh, li nga bëgg naam dëgg la waaye il faut que mbir mi ñu bañ ko jëlee tuuti ak ak ak ak gaawaay. Mhm. parce que man man gaawaay laa ko gisee man pour man lu ñu liggéeyul ci 9 ans du ci ci ci quelques mois yi yi des ci année 2021 su fekkee dégagé na 450 milliards. dont milliards pour année bi pour Euh, ñu njëkkee si tey ñu ne dañuy defar quarante cinq euh, maison de la citoyenneté mhm. et de la jeunesse mu mhm. nekk lu baax mais est-ce que amul woon lu jiit loolu mooy fexe ba xam diagnostic bi dëggantaan ñu def ko ñu xam lan mooy réellement problème ndaw yi parce réellement problème ndaw yi euh, tëkku aajowul si nga ne ok jeunes yi dañu war a dañu war a nekk dans l' entrepreneuriat xaama finance leen si l' entrepreneuriat déjà y' a y' a une expression boo xamante ni dafa sa pose problème. mooy la DER. Mm-hmm. la délégation à l' entrepreneuriat rapide. Mm-hmm. entrepreneuriat musul rapide ci àddina man mii di wax yow daanaka depuis 2013 ba ngi si entrepreneuriat. Mm-hmm. Euh, léeg-léeg ma gis le bout du tunnel léeg-léeg ma yaakaar ni dem dem naa ba koy jege àgguma fa léeg-léeg nag ma génn ci euh, yaa a o hauts et mhm. mais su fekkee da nga bëgg gëmloo nit ñi que entrepreneuriat boobu day rapide yaa ngi nax nit ñi mhm. te nit ñi waruñu naan la leen war a wax dëkk que entrepreneuriat déjà da nga koy bëgg da war a am volonté même su fekkee dañuy basé su loolu tey entrepreneuriat nekk na lu mën a régler problème bi mhm. parce que su ma delluwaatee ginnaaw tuuti par rapport à industrialisation boobu ma lay wax mhm. ginnaaw soo créer la haute intensité de de de de main d'œuvre mhm. jeunes yi après ñoom dinañ mën a créer seen entreprise bopp tey soo jëlee benn jeune ne ko kaay yow liggéey si zone économique spéciale bi euh, ouvrier nga fi dem nga ba nekk ingénieur dem nga institut de suite donc day am benn instant boo xam ne il faut que ñu externaliser service boobu mu doon def. Mhm. bàyyi ko ak entreprise am mu créer yeneen emploi service comptabilité am service marketing am ak yeneen service bu ko defee moom mu mën a avancer sans problème. Mhm. donc yooyu noonu ay points la yoo xamante ni pour man du ñu tëb tëb rek dégager cent cinquante milliards pour régler problème boobu parce que dafa sori. le dafa lu ñu war a teg ci kaw bi la waxtaane ko man loolu laa gëm. Mhm. waxtaan bi nag. du ministère de la jeunesse ak moom moo fi nekk. ne président lii mooy problème yi est-ce que ministère de la jeunesse dem na ci gox yi est-ce que DER dugg na ci gox yi dugg ci gox yi dem waxtaan ak population yi dem waxtaan ak le le sous-préfet ne ko sous-préfet dama bëgg nga woo maire yi su ñëwee toog mhm. maire yi ne leen xaama woo leen association ak mouvement yi fi nekk kenn ku ne indi sa représentant ñu toog waxtaan mhm. ne lii mooy problème président lii la bëgg a régler mhm. lan ngeen ci xalaat mais jeunes yëpp dinañ joxe seen xalaat si Sénégal gi yëpp laa wax de yëpp dinañ joxe seen xalaat et de ce moment dina xool nu ñu régler situation boobu. su ma jëlee exemple Sicap Liberté. Euh, DER premier financement yi mu doon dégagé. moment boobu amoon na benn benn benn orientation logique bu ñu doon demee. di xool communes yi nan leen ni orienté nan leen leen financé. ñun Sicap Liberté pratiquement quatre vingt millions lañ leen réservé woon. ce qui est vraiment illogique. mënoo jël population soixante mille habitants. pratiquement soixante dix pour cent yëpp. nekk ay jeunes nga indi quatre vingt millions pour ñoom te quatre vingt millions ba tey jii gisuñu couleur xaalis bi. Ah mën naa la génneel ñu bari biir Sicap Liberté ñoo xam te ni ñii seen projet ñeneen ñoo leen ko def ñii seen projet man maa leen jàppale ñu rédiger ko te bii ba fi may wax ak yow nii def na plus de ans ba tey jox ñu financement waxuñu lu ci jëm te et pourtant heure bilan su jotee dañ naan financé nañ tant de jeunes mais tant de jeunes ñoo xam ne nee na jotuñu kon boobu dafa est-ce que amul benn détournement d'objectif donc mm-hmm. boo xam ne dañuy xëy xëy tey ne cent cinquante milliards ngeen nañ régler problème jeunes yi je suis mhm. désolé. ok euh, loolu daf ñuy may prox ndoolu ñu daal di dugg ci waxtaan bi ci émission gox bi ñu ciy dalal Serigne Saliou Ndiaye nekk njiital euh, Séné Sénégal sunu naat. sunu Sénégal naat sunu naat. alors tey euh, fan la goxu Sicap Liberté fan la toll tey. waaw goxu Sicap Liberté moom daanaka tollul fenn fi mu ñu ko bàyyi woon rek. Ah, eh, defe naa ni jéego tamit duñu fa def. waaw jéego yi ñi koy def mooy ñi nga xamante ni amaana am na yéen a yéen yéen a defar. léegi fu mu toll waaw moo tax ma ne la fi mu toll mooy ñun ñi nga xamante ni tey kenn ku si nekk jóg nga nga ne da ngaa a defar Sicap hormis uh-huh. uh, uh, uh, le maire bi nga xamante ni ñoo ak ak ak ak équipe am uh-huh. ñoom mandat deux ans yi ñu fi def ba fan yi ak assemblée nationale uh-huh. yokk nañ seen i mandat gars yi ñoo ngi ci donc ñooñu am na fu ñu bëggoon a yóbbu Sicap ñun gis nañu que ñoom fu ñu bëggoon a yóbbu Sicap ba tey ñun lañ ci lañ ci namoon amuñu ko ci liñ ci namoon ñun amuñu ko si donc ñi nga xamante ne ñooy defar si tey man tey mën naa sunu genre gii la ñi nga xam ne dañoo yor suñu ñaar dërëm suñu juróomi dërëm bokk bokk ak waa SICAP ci wàllum social bokk ak waa SICAP ci wàllu sport mhm. bokk ak waa SICAP ci wàllu environnement ci wàllum santé mhm. ci wàllum com action communautaire mhm. ndax lii ma lay wax du wax pour wax parce que lii ñun déjà lu ñu a def la bu nekk pàcc bu nekk benn pàcc ñu daal di si jukku jukki waxtaan ci tey su ma la nee wàllum santé commune bu SICAP tey fan la toll ci wàllum paj mi tollul fenn une fois de plus tey ñu jëlee Sicap Liberté euh, euh, benn poste de santé la am benn poste de santé sur soixante mille habitants et euh, organisation mondiale pour la santé nee na. chaque dix mille habitants boo jël war nga am benn poste de santé. kon tey waroon nañ waaw waroon nañ toll tey si six postes de santé. suñu basé woo rek si calcul yooyu noonu. tey ñoo ngi ci benn. benn poste de santé boo xam ne daanaka kenn fréquenté tu ko ndax ni wóoluwuñu ko ñu ngi ko war a wóoloo tey nag. ñoo ngi changé équipe bi ndànk-ndànk ba fa nekk nit ñi ñoo ngi commencé dem benn par benn. Mhm. su ma jugee si loolu noonu am nañ benn centre de santé boo xamante ne mooy centre de santé Mamadou Diop nga xamante ne l'ancien maire nañ ko tuddee. boobu au moins am na am na ay ay ay centre de d' accouchement euh, chirurgie pédiatrie yu jëm ci fànn yooyu noonu mhm. mais. du lu du lu mairie Sicap nag def loolu nag damay bëgg di ko rappeler. Mhm. mairie Sicap defarul loolu. ah kan euh, moo ko defar ville de Dakar moom moo ñëw investir loolu parce que jamono yooyu jamono 2014 la woon. Mhm. amaana bëggoon na charmer population <laughs> Sicapoise. Mhm. moo tax mu defoon ko c'était de bonne guerre. mais tey si tey li ma la mën a wax mooy sunu santé sooxe na nga jël tey pàcc bi jëm ci Liberté 4. centre de santé Liberté 4 bi nekk foofu du centre parce que si territoire Euh, la bokk mais mhm. daanaka waa Liberté 4 ñoo koy faral di fréquenter et fréquentation bi demeewul noonu. Mhm. juste pour pour dire quoi que santé bi tey ñu ko bëggee vraiment teg ko ci yoon biir Sicap Liberté mooy centre santé yëpp dañ ko war a teg ci suuf relever plateau médical bi indi li ñuy wax euh, euh, euh, poste de santé autant pour moi dañ ko war a teg ci suuf relever plateau médical bi indi li ñuy wax centre de santé. Mhm. ndax Liberté 4 Liberté 2 1 3 ak poste de santé bi yooyu noonu yëpp tey su leen defee liberté 6 moom boobu sax mënul nekk tellement ko dafa ndaw. Mhm. mais suñ leen defee centre de santé population bi jarutul muy jóg. di dem fu mel ni euh, Gaspard Camara. wala wala fu sori di faju mën nañ toog seen seen commune. Mhm. faju mais loolu il faut que mu am vision bu dëgër. boo xamante ne dañuy xam ni que ah lii nañ am vision si santé lii nañ am vision si si ci pàcc bi ci pàcc bi pàcc bi. Mhm. ba pare nag nga dem ci ba jeex. ok ah. léegi dem ci ba jeex ci mbirum coronavirus bi comme ci santé lañ nekk moom la ñuy daal di continuer ba ñuy ñëwaat ci beneen alors gis nañ ni euh, taxawaayu mairie bi ci coronavirus bi yow noo ko jàngatee seen mairie. man de wax wallaay xaw ma sax ban taxawaay nañ ci am lu dul euh, gouvernement bi ba mu yónnee ay ceeb ak saabu mooy seen yooyu ñu doon joxe mairie bi woo na les les entités remarquables teg ay ay comité. pour ñu mën a waxtaanee ceeb beeg yooyu nu ñu koy distribuer. Hmm. ginnaaw loolu ba mu rombee. Hmm. amaatuma benn information. mais yi génnul gafaam mun a xeex ak jàngoro wallaahi wallaahi aw ma ci en tout cas maa ngi ko doon gëstu am na tamit leneen je pense bien lu mu bëggoon joxe mairie bi xaw ma ndax joxe na ko wala joxewu ko parce que aw ma ci information mais li nga xamante moom wóor na ma mooy ceeb bi nga xam moo duggoon ci gox bi. Hmm. jóge woon ca kaw. ceeb boobu daal xam naa ne ba mu ñëwee woo nañ ñun ñëpp ñu def ay sous comité de liberté en liberté si extension pour mën a mën a wax ci ceeb boobu mhm. mais lii sax ay reel ree la ma def ah, lu tax mu lay def rek parce que suñu demee bay wax ci ceeb mhm. covid am ñuy wax que si ceeb rek dafa ñaaw ah masque yeeg yeneen yi xanaa ñoom dañ ko bàyyi ginnaaw ñun amul nguur gi amul benn masque bu mu jógee jëlee ci kaw indi ko fi ñun ñoo jël suñuy koppar astur la ñu am mhm. dugal ko comme ñun suñu sikaab naat dañu defar ay milliers de masques maye ko biir sikaab liberté loolu ba tey jii nii sax du lu ñuy ndamoo mais fierté la da ngay romb biir Sicap ba fi may wax ñu un an après nga gis nit ñi di takk masque yooyu noonu donc man gisuma tey benn politique boo xamante ni à part ñun sunu Sicap naat ñi nga xamante ñu ñoo njëkk a initier sensibilisation biir Sicap Liberté. ci wàllu ko moom. moom laay si loolu laay ñëw. Mhm. ñun ñooy njëkk a sensibilisation si wàllu Covid ba muy tàmbali mois de mars donc ñu ñëw proposer maire bi nekk dañu bëgg a def benn benn benn benn caravane. pour ñu xool ensemble lan la ñuy euh, vulgariser sensibiliser. Euh, sensibilisation bi. voilà population bi. et mu may ñu ko ñu commencé ko après malheureusement continuer wu ko ensemble ak ñoom mais ñun continuer nañ suñu logique. Mhm. ñun daanaka suñu Sicap Naat. parce que yaa ngi wax sunu Sénégal naat moom nga ma présenté en tant que président sunu Sénégal naat qui est un mouvement politique mhm. national mais aussi euh, parallèlement je suis euh, le le le président de sunu Sicap naat mhm. bi nga xamante ni c'est un démembrement de sunu Sénégal naat donc tey jii tax ndax bay si say oom nañu wax fi mu toll nii lépp lu ñu am Sicap moo ñu ko gënal defar ko mhm. mu jaar yoon ba nga xamante ne képp ku mës a wax ni que Sicap jaaroon nga fi rek di nga bàyyi xel ni que ah am na ay ndaw de yu pour defar te defar nañ au moins suñuy doom ak suñuy sëf suñu ñëwee ëllëg du ñu jéppi mhm. ndax defe naa ne foofu tamit farata la mhm. politique pour politique baax na mais def te yàlla tax tamit moo ko gën mhm. Mhm. donc kon jéego yi ngeen xam ne yéen tey seen mouvement def na ko ci biir euh, euh, commune bi euh, yaa ngi ko doon junju léegi masque ak masque di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi kon bu la déggee dafa mel ni mairie bi dafa xaw a jàdd koñ tuuti. waaw man xam man lu lu jëm ci ci mairie bi gestion ah mais bu bëggee dara itam dinañ ci ñëwaat waaye tamit jar na seet lu jar na ci. coytu ko ak càmbar ko moo tax ñun ñu jóg ndax dañ ko def ba pare. soo ko jóg bëgg a laaj suñ ko deful woon. du ñu mën a wax. am nga ci tontu. am nañ ci tontu waaye man pour man tey débat bi su ma amoon li ma gën a. Mhm. dañuy wax rek ci problème SICAP. ak mhm. ak solution yi. Ah, mais mais gestion mairie bi. Mhm. man ñaare du ma ci bëgg sax di wax. gestion wu keneen keneen la. mais euh, DG sangam ministre sangam ci gox bi même su fekkee te SICAP bénéficié woon de huit nominations bu président de la république def. ñun gisuñu ko daanaka ndax. suñ ko gis su su amoon njeexital dëggantaan. Hmm. heure bi si mën a fi. kon amul njeexital huit nomination. amul njeexital kenn ku nekk soo pesee tey budget kii moo ngi si douze milliards. kii moo ngi si vingt deux milliards ainsi de suite xoolal milliards yooyu noonu nga yor ko néew ñu la pour Sicap la pour Sénégal lañ la wax. Hmm. waaye tey waa Sicap waroon nañ fexe ba xam ne que ah ñii kat ñoo fi toogal président de la république def nañ lii ak lii ak lii mais loolu ñun santiruñ ko Sicap hmm. sentiruñ ko moo tax su ma déggee ñuy wax ni que deysaan eh, ñoom dañoo bëgg a defar daf ma ay ree daf may jàpp. ko ah waaw ndax damay xam ni est-ce que lii ñoom li ñuy wax ni est que nekk na loo xam dëgg la ci ñoom. Mhm. ndax kuy defar ñu jox la moyen yoo defaree. jox la milliard yoo defaree ne la ca la ngay defar am nga am nga sax possibilité defaral sa waa gox. Mhm. yow sa waa gox defaloo leen lenn. wala boog la nga leen di defal pour ay tour lëndëm la ndax loolu laa ko mën a tuddee. jékki événement am rek nga jóg. mi nga ne yow da ngay defar lii ak lii ñaare doo xam li muy nduru daal mhm. mais man li ma ëppal solo ndax man débat wu bases yooyu nga baal ma man du ma ci bëgg di dugg man li may bëgg di wax mhm. mooy problème u Sicap Liberté mhm. ñu teg ko ci kaw taal bi problème bi nekk de waaw ba tey ci problème bi lañ nekk parce que quand on parle du problème aussi on parlera forcément du capital humain bi dafa diversifié mais tey capital humain bi tax ñuy wax mooy ndaw ñi ñun ndaw ñi. lan la ñuy fexe ba defar Sicap Liberté. ah léegi laaj naa la ko léegi. yéen ndaw ñi nan ngeen di fexe ba jug war a defaraat seen Sicap boobu nga xam ni yaa ngi koy wax fu ne. waaw xam nga xam nga déjà xam nga déjà déjà déjà da nga duggoon ci benn pàcc. Mhm. nga bëggoon ko def ay pàcc. waaw ah. te àggali ko. ba tey dinañ wax nga ah. ci santé. léegi ñu ñëw ci ci infrastructure yi tey fan ngeen toll ci commune bi. Euh, ci tey si infrastructure mën naa ne li ñuy wax infrastructure de base yi fi nekk à part poste Euh, wàllu terrain de football yi nga xamante ne ce ne sont pas réglementaires ba tey ba tey benn terrain de football moo réglementaire muy bu Liberté 6. Mhm. tey suñu waxee si wàllu infrastructure euh, euh, amuñu amuñu ñun centre de santé ñoo ngi wax école yi école yi nga xamante ne malheureusement ay risque la sax mhm. ndax dañuy ah, ragal sax fii ay fan kat nan lañ fay mën a jànge waaw parce que tout simplement toit yi soo bëggee nga jël sa caméra ñu ànd toit yi ba fi may wax ak yow ni depuis 1958 ba ñu créé Sicap Liberté ba tey si tey tuwaay léegi mu daanu école yi fi nekkoon ba tey waxuma la sax maire bi fa nekk actuellement muy sama papa ma koy euh, nuyu de passage sant seen aaj avant moom mur yi fi nekkoon ba tey école yi fi euh, salle de classe yi toit yi ba tey moo fi nekk léegi mu daanu ba tey amul benn politique pour pour pour dindi loolu noonu infrastructure yi su ma ñëwee si si si la voirie yi mhm. les chaussées sont dégradées ba tey ba tey si kaab tey la gën a dégradé tali foo tourné mu mu mu mu mu coqatiku Euh, di yàq ay amortisseur amaana sax ñi nga xamante ne ñoo scooter wala moto daal di si euh, daanu yu mel noonu donc loolu ñaaw na si tey ki nga xamante ne. da doon mais liberté bi euh, Sicap bi amul changement. si lan si xàll yi. ci xàll yi bon yenn quelques changements yi am apporté nañ ko en 2014 naturellement comme li ma lay wax rek. Mhm. centre de santé liberté liberté bi nga xam ne le maire moo ko fi defar. Euh, Barthélémy Dias euh, du moins. Euh, Khalifa Sall Khalifa Sall mhm. maire boobu noonu moom moo financé woon à ce defar ay tali. Mhm. yi nga xam dafa yàq woon mais boobu 2014 nañ nekkoon élection locale nañ nekkoon. ok doon charmé quoi. waaw charmé bon loolu tamit ñu ko siy sant ah, ndax. te en tant que maire de Dakar moom a def parce leen seen bopp. mais li ñu war a xam. mooy. Euh, ñun dañu am dafa am benn benn comme li may faral di wax président de la république li ma koy critiquer ñaare bari na lool. Hmm. mais dafa am yoo xamante ne aussi ay ay avantages la yu ñuy defal. su ma hmm. jëlee acte trois de la décentralisation. Hmm. mais yu bëri dama leen di dégg ñu koy ñu koy ñuy xeex. ñu koy ŋaññi koy ŋaññi naan acte trois bi baaxul. man man man acte trois baaxul te yow sa budget jógee cinq cent mille lions à à un milliard par exemple. ak trois bi baaxul sa budget jóge un milliard dem ba cinq milliards ah man xaw ma xaw ma lan lay wooye acte trois bi baaxul man pour ak acte trois bi baax na mhm. ndax acte trois bi moo lay permettre tey euh, ressources yu bari léegi yow yaa koy téewaat acte trois bi moo ba mu des benn ressource loolu dinañ ci ñëwaat stade Demba Diop mhm. parce que cas am solo ngi noonu lu ñu war a waxtaane dinañ ci wax euh, acte trois bi baaxul yow tey yaa ngi mën a yaa ngi yaa ngi yaa ngi mën a def li ñuy wax PPP partenariat public privé su la neexee yow en tant que mairie mhm. nga jóge sa gox jël sa avion dem xooli ay partenaires jëli leen indi leen manaam tey si gàttal eh, idées yi wax investissement direct étranger yi nga xam danaa danaa ñëw su le plan euh, bilatéral coopération bilatérale léegi yow direct la su la neexee yow mën nga dem jëli ay indi ko kon ak trois bi baax na est-ce que comprendre nañ ak trois bi mooy question bi est-ce que mën nañ utiliser acte trois bi à bon escient ban nga si jàpp dañu comprendre lul wala dañ koy caaxaan mënu ma réfléchir à leur place en tout cas utiliser wuñu ko à bon escient parce que suñ ko utiliser woon à bon escient heure bi romb nañ fii mm-hmm. ah ñun de suñu sikaab naat ci kàttanu yàlla suñu yàlla joxee mairie bi ñun xam nañ acte trois de la décentralisation fan nañ ciy dem lan lañ ci utiliser nan lañ ko doxalee ndax déjà mm-hmm. euh, ñun ak quelque partenaire yi ñu am rek mm-hmm. si wàllum professionnel ak ci yiy yëngu defe naa ni koo woo si développement dina la si koo ci woo si defar dina la wuy si soo koo ci woo si créer ay emploi dina la wuy si mhm. donc euh, loolu daal mooy question yi nga xamante ne bëggoon nañ ci bëggoon nañ ci àddu alors léegi bu ñu euh, euh, waxee rek ci li nga xam ne ba tey ci point yooyu tey maa ngi koy wax ci wàllum santé maa ngi koy wax tamit ci wàllum infrastructure am na pàcc yi nga xam ne am na solo ci check-up bi lool lool yaa ngi fi doon su ma ba nga fi mujjee woon yaa ngi doon wax mbirum insécurité fan la toll tey insécurité bi tey la gën a tey la gën a galopante mën naa ne c'est pas exagéré parce que tout simplement fan yee ci ginnaaw nañu gis ay agression ci yoo xamante ni yëg naa ko wala boog wax nañ ma ko euh, am na nu commencé nañ def ay jéego. Mm-hmm. ndax ville de Dakar fan yi commencé na duggaat biir Sicap ginnaaw ñun waa Sicap bañ leen demandé. Mm-hmm. ñiy jaar si mairie Sicap ñiy jaar si suñu genre gi nga xam ne xëy na am nañ ay loxo biir ville de mhm. ñu waxtaan ak waa ville de ba tey ñu commencé électrifier yenn zone yi nga xam te ni lamp yi déjà dañ ko war a changer pour te dire ah changement ampoule kase war a tax ñu war a rey nit changement ampoule kase war a tax ñu tafu nit ci loo xamante ni su ñu amoon euh, benn organisation à la base li Senghor naan organisation et méthode mhm. tey suñu amoon organisation à la base bu mucc ayib affaire bi day déroulé wu comme mm-hmm. sur des roulettes day dem. Mm-hmm. amul lu koy téye parce que day dem. mais je me dis que ni tey équipe mairie bi fi nekk bi nga xamante ni daanaka def na fi euh, ñaari mandat ci ci ci fukki at. Mm-hmm. c'est normal dañu leen koy comprendre parce que dañuy sonn dañuy épuisé. Euh, pour man tey si tey euh, amul amatul challenge bi nga xamante ni moom la amoon en deux 2009 ñoom ba ñuy jël mairie bi c'est très normal. du xaxar du critique logique la àdduna moo ni mel. àdduna nag dafa baaxoo tamit ñuy def renouvellement li ñuy wax. Euh, euh, tey jii du 109. Mhm. loolu lañu apport bëgg apporter Sicap Liberté loolu la waa Sicap Liberté fi mu toll nii jamono yi moom la ñuy soxla soo duggee def say pro say say micro trottoir di nga xam ne Sicap Liberté guddi ñu toll nii ay jeunes lañ soxla pour ñu gérer maire bi mhm. waaw. léegi ñu ngi dalal tey Serigne Saliou njaay nekk président. sunu Sénégal natt mooy suñu invité émission gox bi bu ngeen ci mënee bokk da ngeen di def 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 lan moo fa loo xam ne euh, jot na ñu daal di koy saytuwaat te loo xam ne laajuma la ko. Euh, pour Sicap Liberté. lépp la ñu war a saytuwaat. A ba Z li ñuy wax les quatorze compétences transférées. ci wàllum éducation ci wàllum santé wàllum sécurité wàllu hygiène publique. Mhm. wàllum euh, tali yi nga xam ne dafa dégradé. justement wàllum hygiène publique yi fu ngeen ci toll seen commune bi. waaw suñu commune bi malheureusement mhm. comme li may wax tey si tey daanaka vingt cinq personnes. Mhm. vingt cinq agents de sécurité de nettoyage ñoom ñooy nettoyer Sicap Liberté. vingt cinq rek Liberté 1 ba Liberté 6 pratiquement plus de sept mille foyers. vingt cinq personnes war na ko mënul loo xam nga loolu mënu nekk am na ñoo xam ne seen commune bu ñu nekk du du jotee. parce que tout simplement amaana semaine bi d'après ni ma comprendre seen organisation bu ma leen laajee parce que ñun tamit duñ fi nekk di xaxar. Mhm. dañuy dem waxtaan ak ñoom lan ngeen di def. Mhm. nan ngeen koy defee ñu ne ñu nii ak nii lañ koy defee ñu xam ne kon ñun suñu ñëwee mhm. bu neexee yàlla suñu sikaab naa su jëlee maire bi nii ak nii la ko war a defee bunt bi tëjuñu leen euh, ko pour yéen mënuñu ko tëj parce que tey dafa am li ñuy wax d'après l'article six et l'article sept des du code wax la gestion tey population bi su ko neexee ñëw fekkee conseil municipal bi comme ñaare euh, mairie yu bari duñ defati li ñuy wax délibération. Hmm. lañ leen tënk ci mairie bi lii la ñun am nañ possibilité dem fekkee dañ ne la amoo possibilité nag euh, voter. Hmm. wala waaye mën nga joxe sa xalaat gars dégg la. mais population bi ban ban commune ngay dem ci Sénégal ñu ngi def loolu amul daanaka mais moo tax ñun comme xam nañ suñuy àq ak suñuy yelleef. Hmm. ñun dañoo jug dem fekk leen ne lii ak lii nañ soxla. loolu jéego la quand même ci grandeur dem ñu jox la itam réponse yéen est-ce que réponse yu ñu leen ciy jox yéen a ngi ciy gis seen bopp bu baax. Euh, lépp mënul ñaaw li nga xam ne que def nañ ay jéego mais su fekkee tey dañu dañu dañu dañu matalew ci wàllu budget li ñu bëgg def lépp duñ ko mën a def mairie bi du ko mën def hmm. mais ñun su ñu ñëwee. Hmm. tey budget SICAP mu ngi ci un milliard fi mu toll nii. Hmm. te ñun suñu ñëwee gàtt gàtt bëgg nañ ko yéegal cinq milliards. parce que xam nañ fi ñuy jaar ndax ñun dañuy njott ni ñi ñuy gérer suñu entreprise rek nañu leen gérer municipalité. Serigne Saliou Ndiaye mooy sa projet kon biir commune bu Sicap Liberté. waaw euh, du ma ne projet orientation rek lay mun wax. parce que projet pour man teel na. ndax tànk pareegoo Sicap bi yëpp proximité yi bientoo ñu tàmbali ko. dugg biir Sicap dugg këroo kër waxtaan ak ñoom tànk loolu defuñu ko mënuñu wax ne lii mooy projet. parce que da nga war a def li ñuy wax la politique participative et inclusive. waaye li nga xamante ni ñun moom nañ joxe mën nañ ko joxe comme orientation mooy que ñun Sicap Liberté dañ ko tënk si beneen programme bu tudd Sicap 2040 mhm. maanaam fii ak 20 ans dañu bëgg changer xar kanamu Sicap donc su fekkee fii ak 20 ans dañu bëgg changer xar kanamu Sicap il faut ñu teg ko ci ay axes stratégiques mhm. donc te tey axes stratégiques yi nga xamante ni bëgg nañ ko ko ci teg mooy li ñuy wax accès aux services sociaux de base et au parcs euh, culturo sportifs mhm. loolu defe naa leer na services sociaux de base mooy wàllum santé wàllum éducation culture sportive mooy ñi nga xamante ne ñooy rap ñiy way ñuy musique ak ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy def ay sport ku nekk ci domaine booy yëngu ku bi ngay yëngu ñun fexe dañuy bëgg nga am accès si loolu ba pare mhm. ndax ñi nga xamante ne aussi ñooy jàng ñu fexe ba am accès tamit si jàng bi si école yu mucc ayib fexe aussi ba ñi nga xamante ne mënuñu mënuñu jàng ni ñu ko bëggee tey ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñun subventionné leen ndax tey mairie Sicap Liberté moo ngi si 35 millions de budget pour bourse yi maye mais bourse yoo xamante ne daanaka ñu bëri ñoom yéeguñu ko parce que demuñu vers l' information d' après donc day xaw doon problème nan lañuy fexe léegi ba information bi ñëw si ñoom mhm. xamuñu que ñun suñu seen seen mbindaan nañ du mën a sotti parce que il faut ñu jaamu leen il faut ñu dem jox leen information pas ñu ne ñoom dañuy ñëw jël si information bi mhm. et ji su fekkee ki am bac rek ngay jël jox ko bourse mu dem jàngi aussi ça pose problème ndax dinga nga gis benn père de famille boo xam jeune couple la dem na yàlla dogal na ay mbiram moom mënatul dem ci àddina kooku il faut ñu utal ko bourse pour xalem bi nga xam ne mooy dem euh, préscolaire dem mat euh, euh, maternelle préscolaire ak élémentaire ainsi de suite donc ñun yooyu problème problème yu ñu bëgg rek régler la muy premier point bi deuxième point bi muy li jëm si wàllu tey hygiène hygiène publique mhm. espace vert ak carte de vie noonu lañ ko tëggee. Hmm. mooy sunu sunu deuxième axe. Euh, euh, defe naa ni li muy wax leer na parce que tey ku wax waxu Sicap Liberté daanaka euh, li nga li nga gën a bëgg ci Sicap Liberté mooy Sicap ba woon démb. 1958 hmm. sama yaay yi may dégg la ak sama papa yi may dégg xam nañ li may wax Sicap ba woon démb nañ bëgg indi plus yu bees. ndax duñ fi bàyyi indi rek Sicap bu woon démb de ndax adduna bi dafa dox hmm. ñun tey jii si point boobu nga xamante ni wàllum wàllum wàllum wàllum environnement la ak carte de vie ak espace vert yokku nañ ci li ñuy naan smart city na lañ indi smart city bu bees et soo bàyyee xel fii ak euh, euh, trois semaines mhm. di nga gis ñu commencé développer smart city biir Sicap Liberté te ñun suñu Sicap naat ñoo koy déployer mhm. danga gisal sa bopp dinañ la ñëw jël waa Rewmi TV ak yeneen presse bi ñoom ñoo gisal seen bopp que smart city baa ngi commencé dox loolu nag xam naa gars yi dinañ ne ñii fu ñuy lu ñuy wax nii mhm. waaye Eh, nañ bàyyi ba mu ba mu àgg si si jàmm ak salaam charme itam bi ci wàllu woowu. waaw charme man pour man su nekkoon charme kay eh, eh, avant avant Covid 19 bien avant Covid 19 ñuy dox ci intérêt Sicap Liberté depuis 2011. Mhm. donc pour man ñu nekk ñu si logique charme mais juste pour terminer si Sicap 2040 yi nga xam te ne mooy axe stratégique yi. Mhm. ñu ñëw si li ñuy wax la sécurité des biens et des services. Mhm. su ñu ñëwee si troisième point boobu quatrième point bi. et dernier point stratégique mooy li ñuy wax tey. Euh, Euh, li ñuy wax tey le développement de l' économie locale et des start up. Mhm. ñun quatre points stratégiques yi nañ tënk sunu SICAP euh, SICAP deux mille mhm. léegi nag bu ci nekk comme dañu joxe orientation mais programme mënaguñ ko définir parce que tout simplement il faut ñu pare porte à porte yi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko avant Covid bi. Covid bi ñëw ñu arrêté ko. donc fi mu toll nii fii ñëw dinañ ko tàmbali. dugg ci kër yi waxtaan ak ñoom. yee leen ci yu bëree bëri bëri ak leneen li nga xamante ni dinañ fa dugg ci kanam waxtaan bi balaa muy jeex. sëñ Saliou fan nga war a jëlee kon kay koppar gi ngay wax ni kopp koppar gi ñuy wax mënuñu ko jëlee feneen fudul biir si kàpp. ah ci naka. benn ñaareel bi ak euh, parce que bala ba ku lu nga da nga da ngaa jug pour defar njëkkal njëkkal participer ñun loolu dañ ko tàmbali ci ay yi. di leen jàppale as tuut si la ñu mën. dañ ko tàmbalee ci wàllu euh, environnement di def sunu alal as tuut si ñu am. tàmbali def ko ci wàllum santé. loolu soo demee waa Sicap dina la ko wax ak ci wàllu social bi nga xam ne loolu la ñun la concerné xaaroo mairie su ma la déggee noonu ñuy xaaree pour am mairie pour defar su fekkee na ne da ngaa gëm defar kay jugal defar su fekkee sincère nga ñun ñun mairie bi du une fin en soi ñun dañu gëm ni avec ou sans mairie fii ak 2040 dañuy changé Sicap Liberté te loolu bu neexee yàlla fii ak fan yi ñëw dinañ tàmbali ci wàllu smart city ba nga tegal ci sa bët ba nga nee ñi kat ah amaana ku leen jox mairie bi dinañ ko defar parce te loolu la ñuy ñaan yàlla ñu bañ ko gañe wallaay dañuy fourni logique bi ñu nekk ndax dañoo bëgg Sicap jag mhm. su jagee pour ñun la mhm. suñuy papa la suñuy yaay la suñuy doom yi suñuy doom la ak suñu set yi nar a ñëw ëllëg kon diisoo beeg euh, doomu Sicap yi dafay wëy waaw loolu comme tàmbali woon nañ ko ba benn benn programme bu ñu bu ñu bu ñu tuddee jokkoo jokkoo ak euh, ak euh, ak waa Sicap mhm. donc loolu noonu moom dañ koy wëyle bu neexee yàlla Hmm. alors ba tey ñuy dalal rek euh, Serigne Saliou Ndiaye nekk njiital Sénégal. Euh, sunu Sénégal naat sunu sunu Sénégal naat xam nga Sénégal nat sunu Sénégal naat itam xam concept bi xam fan nga ko jëlee. mais daa mel ni euh, bëgg nga daj Sénégal de. waaw loolu moo nar a moo mës nekk suñu yéene ndax kenn ku ne defe naa soo bëggee xam ci li muy dox foog nga xool trajectoire am tuuti. Hmm. Euh, ñun ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu tàmbalee ci wàllu citoyenneté ak wàllu wàllu wàllum civisme wàllu politique. Mhm. dañ ko tàmbalee si le jogu jeunesse la mouvance des jeunes sénégalaises. ñi mhm. nga xamante ne maa ngi nuyu ñi si nekk muy benn mouvement citoyen donc ñun su le jogu Sénégal lañ mës a nekk parce que dañu yaakaar ni du benn français. Mhm. wala kenn ku jógee Kigali wala beneen dëkk mooy ñooy defar Sénégal. ñun jeunes yi ñooy jug defar suñu gox defar Sénégal ndax cohérence la àndal logique la defar sa gox defar Sénégal. 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86. Sicap am na ay kàngam de wa junj nga ko fii nee nga juróom-ñetti ministre am ngeen ko ci seen diwaan boobu ak Serigne Saliou bu ñëwee samp ndëndam itam ah loolu dina peser di. waaw du juróom-ñett sax juróom-ñett nomination la mën naa ne ñii dañu bénéficier wu décret daanaka ñoom huit yëpp mais ñii ay DG nañ ñii ay PCA nañ ñii ay ministre conseil nañ loolu waaw euh, SICAP waaye ak Macky président Macky Sall wàccoon nañoo ak ñoom mais ndaanaan yooyu ngay wax mhm. man gisuma fa ay ndaanaan de ndax man pour man ndaanaan mooy ka nga xamante day ñëw defar lu lu loo xamante ne kenn du ne accam dañuy xam ne que lii mu def nii yëfu ndaanaan la ndax daa am moyen am budget ñëw taxawal boppam dëggal boppam defar gox bi ndax jox nañ ko jumtukaay mhm. parce que ñu ci bëri si ñi am huit nomination yi ñoom ñoo ñu gën a jege pouvoir de de décision mhm. ñoom dañu am budget dañu am xaalis war ko defar ñun daanaka sunu entreprise la muy la muy générer si bénéfice daanaka moitié ba dina demaat si SICAP ñun moom nañuy demee biir SICAP Liberté et néanmoins résultat tey soo demee laaj waa SICAP résultat yu ñu ñuy indi ñoom indeeguñ ko est que ay ndaanaan nañ est ce que mbir mi sax mbirum xaalis la sax far mbir mi mbirum vision la bëgg la yéene la pour jóg dox si dem ci. da nga jàpp ni gënuñu la bëgg Sicap yow. non ñii xaajuñu gën maa bëgg Sicap man Sicap laay yeewoo ñi si bëri si ndaanaan yi soit disant daanaka ngay wax yeewuñu Sicap di même su fekkee seen kër famille ngi fi yeewuñu Sicap dë dëkkuñu Sicap Liberté man ba ma e, ba ma ba ma e, jógee e, Sicap daal di dem dëkk ville jóge ville dem Nord Foire jóge Nord Foire xam ni que Sicap laa war a yeewoo yu fu dof laay def ngeen baal ma si terme bi si laa ñëwaatee Sicap Liberté sama papa ak sama yaay nag ñoo ngi dëkk Sicap seen kër seen titre foncier ngi Sicap kon ma desaat Sicap parce que pour man nit ku yeew ak problème am biir Sicap Liberté war naa mën a ñëw gis la mais yow foog nga nekk ñu ne la ñoo ngi fil yaa ngi fële kooku nan ngay defaree Sicap mënoo ko comprendre non mënu ko comprendre dem ba xam ne que lii sax nekk du yufu nit moo tax ma gën a desaat Sicap te bu neexee yàlla fii laa bëgg sax euh, sama mujjantalu fan ci kaw suuf sax nekk ma mu fekk ma biir si kàpp ok mu nekk lu am solo wax nga ko sànq yaa ngi ko doon junj sa biir euh, kàddu élection yi dem nañ ca pencum ndaw réew mi euh, fanweeri fan léegi gën gaa yéex ak benn ci weeru janvier ci atum deux mille vingt deux lan gën a war a amal élection yooyu gis nga ni laata ñuy ñëw ci randal gi sax njiitu réew mi yokkoon na mandat conseil départementaux yeeg municipaux yi. sa jàngat gu njëkk ci wàll wi ni mel laata ñuy ñëw ci élection yi. waaw man man man man euh, assemblée président de la république su proposé woon beneen projet de loi bu bokkul ak report des élections sa daf may jaaxal. ah bon moo tax opposition bi tamit man comme li may wax faruma opposition. faruma pouvoir. même su fekkee pouvoir ba même su fekkee pouvoir ba nekkoon naa fa daal di démissionné mais tey li may wax ci loolu mooy que ni Covid période Covid dañ nekk. économie réew mi dafa ndërmeelu période Covid am na ñuy amal ay yeneen élection ñooñu ñoom est-ce que seen i réalité dëkk ak suñu réalité ba ba benn la tey jii nga yëkkati benn saaku ceeb jox ko benn popula euh, benn kër bu fekk euh, ñetti semaine ñetti ay bés fi mu toll nii ceeb ba jeex kooku ay réalité ak réalité beneen dëkk est-ce que benn la du doon benn moo tax man la fekk ñu reporter élection yi man dama koy saluer parce que pour man mënuñu ne ni déjà soit kon incohérence day am ñu ne ñu xaalis amul ci dëkk bi léegi kaa leen def élection xaalis am na ci dëkk bi y' problème donc man dama ànd si ñu nekk ñu reporter élection yi ma je suis pour. mais calendrier républicain dañ ko war a respecté. waaw mais calendrier républicain lu ñu ko respecté respecté suñu woon prévoir ci àddina ni que Covid bi dina agsi kenn mu su ko woon prévoir. mais mënuñoo mun nañ jël ay jumtuwaay ngir organiser élection yi. suñu ko jëlee mën lu war a mun nekk la jumtukaay bi pose problème li pose problème mooy xaalis xanaa di nga dem imprimer ay ay ay ay. ay bulletins ñoom waxuñu ba tey amuñu xaalis non ñoom ñoom ba tey tamit waxuñu lan moo tax ñu koy reporter. ba tey waxuñu li animé loolu président dafa dafa def benn projet de loi rek une fois de plus dama ànd ci projet de loi boobu noonu même su fekkee ànduma ak lu ci ëpp ci ay politique am fi mu toll nii président de la république mais ànd naa ci projet de loi bi ñuy yokk mandat conseil yi yow ànd nga ci amoo ci benn problème mandat conseil yi suñ dañ ko waroon yokk parce que moo gën a légit moo gën a légal moo gën a légal ndax boobu ba tey seen i mandat jeex na te ñu ñoo ngi yokk seen mandat te amul lu ko légaliser donc il fallait que lii mën a am au moins ñu xam ne que ñu ngi toujours ci ci ci pays de droit mhm. Mhm. tey nag euh, léegi euh, élection yi euh, maa ngi lay wax sànq gën gaa yéex 31 janvier atum 2022 est-ce que ñu amaloon ko tey mu bañ laa arrangé moo tax ngay wax loolu. su ñu amaloon élection yi fii ak un mois. man gëm naa ni ci kattanu yàlla damay gagné Sicap Liberté mairie Sicap Liberté. Ah, fi nga ko teg moom. Mm. waaw fi ma ko teg du lenn lu dul déjà quatre axes stratégiques yi nga xamante ne wax naa la ko ci programme Sicap 2040 benn ñaareel bi. Mhm. Euh, confiance bi nga xamante ne Sicap Liberté ma leen ciy sant leen gërëm xaw ma lu tax ñu jox ma ko. naa ni yenn jéego yi ma doon dox la. beneen bi ci topp mooy que xam naa ne que Sicap Liberté dafa soxla changement te changement boobu tey si tey maa koy prôné biir Sicap. kon ñun su ñu demee élection suba kay damay gagné élection yi ci kàttanu yàlla <laughs> man gisuma ma mën a donc ñu def élection yi deux mille vingt et bi ak man ñu reporté ko deux mille quarante laa ci yemale wallaahi benn la ci ma pare nga fu ñu ko waxee rek. man su ñu nee woon élection yi suba la pare naa pour élection yi nekk suba aw ma ci problème man aw problème boobu noonu parce que comme li may wax ñun yéene bi ñu am mooy defar Sicap Liberté moo tax ñu ne Sicap deux mille quarante. fii ak vingt ans ku bëgg yi defar fii ak vingt ans nga ne koy teg ci plan nga koy teg ci programme bu leer nga du fin en soi du dañ ne coûte que coûte dañu war a nekk maire mais li nga xamante moom nañu war a wax coûte que coûte mooy dañu war a changer xar kanam Sicap Liberté mhm. léegi liggéey bi yaa ngi mën naan yaa ngi ci war a àndal ndaw ñi jigéen yi itam ci pàcc bu am solo lañ bokk yow loo leen beral waaw ah, yow nag yaa ngi dugg nag ci beneen poñ bu ma ëpp bu ma amal solo lool lool lool mhm. ndax waxtaan nañ ci ci ndaw ñi euh, mais dañuy am benn programme bi nga xamante ni sous peu dinañ ko lancer biir Sicap ngi koy tuddee naataange Sicap donc naataange Sicap benn groupement économique la groupement d'intérêt économique la bi nga xamante ni li ko tax a jóg ñetti pàcc la mooy li ñuy wax une centrale d'achat li ñuy wax une mutuelle d'épargne et de crédit ak li ñuy wax une mutuelle de santé ndax wax nañ la li nga xamante ne mooy suñu objectif biir Sicap mhm. mais il faut que bu si nekk nga indi programme boo xam ne moo koy mën a étayer ndax ñun si cohérence la ñuy demee donc suñu nee euh, centrale d'achat bëgg nañ képp ku daan dem di jënde euh, pomme de terre kilo Euh, cinq cent nga koy jëndee ak ñun deux cent franc ndax mën na nekk am nañ ay partenaires yi war a mën tax loolu am soo doon jëndee coof kilo bi quatre mille cinq cent ñun ñu ne la coof bi ñun mën nañ la ko jaayee trois mille cinq cent centraliser lépp ci biir Sicap lépp lañ ko bëgg a centraliser biir Sicap Sicap waaye di di di li ñuy wax le panier de la ménagère te ñun loolu am nañ ci xam-xam moo tax ñu bëgg a teg centrale d'achat boobu euh, suñu paree centrale d'achat boobu même toujours naataange Sicap boobu noonu mhm. moom mooy gérer li ñuy wax la mutuelle d'épargne et de crédit tey ñëpp xam nañ benn philosophie bu am biir Sicap Sénégal dakaar fépp ci daanaka ci ci ci réew mi. Mhm. mooy li ñuy wax ay tontine natt yi. donc tey dañuy récupérer philosophie natt yi moderniser ko maanaam tey du secret information bu may joxe la. Mhm. ñun chaque semaine da ngay yëkkati 2000 francs joxe ko muy sa sa sa natt. soo joxee 2000 francs dina am ñu teggi sur 100 personnes pratiquement su fekkee 100 yi dañuy toog dañuy dañuy kenn ki dafa teggi 1500 yi nañ koy jox ci 2000 francs yi 500 yi dañ koy bàyyaat ci kees bi. Mhm. pour lan la pour déjà su amee sa beneen naataangoo jigéen wala euh, bu am ay jafe-jafe ci kër gi yu mel noonu ñu mën la ci jàppale maanaam mhm. wàllum action sociale dañ koy indi foofu. Mhm. lan lan lay jëriñ aussi mooy li ñuy wax la la la mutuelle de santé pour faire une transition. ndax tey nee nañ mutuelle de santé bi nga xamante ne liñ ci namm mooy fexe ba Sicap waaye képp ku feebar nga faju ci prix bu gën a yomb ndax tey ñu ngi wax couverture maladie universelle. ñun dañuy bëgg théoriser et pratiquer couverture maladie universelle dans les SICAP et autrement donc tey ñetti fonction yi ma la wax si naataange SICAP déjà suñ koy nee SICAP ji euh, soxna yi bu neexee yàlla seen problème dinañ ko régler ndax loolu am mairie ak ñàkk am mairie est-ce que est-ce que est-ce que est-ce est-ce que yaa ngi ciy diisoo ñoom mais diisoo si moo tax ñu génn ko programme bi ma lay wax dafa fekk ma waxtaan ak ñu bari si ñoom ndax munoo waxtaan ak tey euh, pratiquement quarante mille femmes mu Sicap Liberté munul nekk. Mhm. da xool ay tête de pont waxtaan ak ñoom lii lan nga ci xalaat ñu jox la nga boole nga teg ci kaw taal bi. Mhm. ñun daanaka depuis Covid bi action yi ñu mu mujjoon def ci Covid bi ak yu mel noonu dañoo jëloon retrait tuuti pour xool. xoolaat jàngataat action yi ñu jot a teg mhm. réalisation yi ñu jot a teg ak fan nañu war a jëm ci fan nañu war jëm boobu nag pare nañ ko fi mu toll nii ok pare ngeen ko donc euh, tey euh, bu ñu la déggee kon daje na programme bi dafa am axe bu nekk rek dafa am ku mu laal ndaw ñi ba ci jigéen ñi. Mhm. Euh, des fois dañ naan mbirum emploi itam emploi ci biir gox bi itam xanaa la nga war a mën a rëdd la. xam nga tey su ma la waxee naataange SICAP bi nga xamante ni trois fonctions la am déjà fonction mutuelle euh, centrale d'achat. Mhm. soo ko waxee dina am ñuy jënd dina am ñuy jaay. dina am ñuy gérer logistique am ñuy mhm. gérer comptabilité ndaw ñi dina liggéey foofu wala duñ liggéey. Ah. liberté 1 ba su ma ñëwee ci mutuelle d'épargne crédit bi. am na ñoo xam te ñooy taayal nañ jël seen natt yóbbu ko mais am na ñoo xam te ne tey ñoo war a dem teggil la mhm. donc soo teggee sax sa sa sa sa sa xaalis am na ñoo xam ne ñoo war a saytul li nga xam mooy jëm ci wàllu épargne bi ak ci wàllu crédit bi su fekkee dañ lay lebal xaalis ci biir mutuel boobu mhm. ñan ñoo koy saytu du ay maire nañuy jëlee fee wala ay pas mhm. ay jeunes nañuy jël ñuy fraîchement ci biir commune bi ah. a génn école ñu ñoo teg leen ci place yooyu noonu ñoo soo ñëwee ci ci ci ci mutuelle euh, euh, de santé bi. Mhm. Euh, nga war a gérer link bi war a am entre population bi mutuel de santé bi pharmacie bi médecin bi dafa am luy par exemple su fekkee ordonnance bu ñu la war a bindal boo war a boo war a fajoo. Mhm. wala tey jii am na système boo xamante ne mooy système de livraison boo xam ne dañ koy teg ak fi système de gestion logistique loolu noonu yëpp ndaw ñi ñoo ko nar a liggéey même su fekkee famille ñoom ñooy nañuy gën a wax naataange SICAP ndax ñoom ñooy demee si logique gu cotisation yi ak si logique gu centrale d'achat yi ndax carte de membre yi ñu leen di jox moo leen mën a permettre seen famille. Mhm. ñun transcender nañ sax femme ak ak ak ak ak jeune. parce que suñu ne la mutuelle départ euh, centrale d'achat mooy que ni ñoo ngi fexe ba sa doom li muy lekkee ci jàmm ak sa salaam war a mën a dem jàngi. Mhm. lan la ñuy fexe ba sa sa sa borom kër wala sa càmmiñ mën a nekk si situation yi confortable donc ñun transcender nañ femme ak jeune. Mhm. ci bi ñu nekk. ci programme naataange Sicap bi nga xam ne c'est une politique sociale euh, sanitaire et économique mhm. ñun transcender nañu jeune ak femme mhm. parce que débat bi waruñu ko orienter tout le temps jeunes yi waa femmes yi déedéet mag ñi ci nañ bokk troisième âge bi ci la bokk xale yu ndaw yi ci nañ bokk donc ay jéego moom tàmbali nga ko yàgg na mhm. ok léegi yaa ngi ma doon junj sànq ni euh, stade Demba Diop daf la yitteel stade Demba Diop daf ñu yitteel li ñu yitteelee mooy que ni. dañuy gis dañ ko tëj lu yàgg mu ngi nii. juntu waaw ginnaaw ginnaaw li fi jotoon xew. ñu koy mm-hmm. masawu di mm-hmm. jaalewaat fami yooyu noonu. Mm-hmm. ci waa Mbour ak waa Wakam. Euh, li fi am mooy que ni stade Demba Diop léegi dafa nekk stade fédéral. stade Demba Diop. stade fédéral la ko ministère de la des sports def léegi maanaam dañuy jël stade bi dénk ko waa fédération sénégalaise de football. ñu ne ñun loolu même su fekkee day am comme doxal nañ ko ba pare. ñu ànduñu ah lu tax àndoo ci. li tax ànduñu ci mooy que ni tey stade la ba nga xamante ni Sicap Liberté dafa manqué ressource loo ci mënti dégg nag coow li li muy bari nii yëpp. Mhm. képp ku xas ba jël mairie bi te amoo xam-xam boo gérer mairie bi di nga ndërmeelu ndax Sicap Liberté amul ressource. li tax amul ressource mooy que ne dañuy def benn étude bi nga xamante ne dañu sur 19 communes de Dakar. Mhm. Sicap Liberté moo jël 15e ci wàllu manque de ressource. 15 mhm. ci wàllu manque de ressource est-ce que kon am nga ay ressources amoo ay ressources léegi ñun stade Demba Diop bi nga xamante ni daanaka quinze pour cent recettes yi danaan dugg si biir Sicap Liberté 15 pour cent yi danaan dugg si biir Sicap Liberté benn programme boo xamante ni euh, FIFA lu jóge hmm. ñu ne dañuy defaraat stade Demba Diop bi dégager budget chaque mois ñu ne un million euh, euh, un million de dollars un million de dollars déjà un million un virgule cinq de dollars nañu war a dugal si réhabilitation stade Demba hmm. ñu ne xaalis rek ministère bi jóg tëb neen léegi léegi stade fédéral la parce que dafa bëgg centraliser financement yooyu ak gestion bi ñun ñu ko nangu Sicap Liberté tey jii su fekkee làmb yeeg football yeeg lépp dañu daan indil ay problème ñaare mais c'est pas parce que problème yooyu ñun dañ kaa naj ba heure bii nii heure léegi nag fayeeku jot ngeen bëgg ñu ne da ngeen koy da ngeen koy nangu ci ñun parce que stade bi su fekkee dañ koy defaraat daaneel ko nan est xool nañ nan est-ce que ci famille yi nekk aux environs les riverains su fekkee dañ ko daaneel ñan ak ñan ñoo war a liggéey ci stade Demba Diop est na tegaat mbir bi ci ñu waxtaane ko parce que du décision unilatérale est-ce que dem ngeen wax ci ak bokk moomeel bi wax ko situation bi ngeen mën a am ñoo ngi préparé benn point de presse boo xam ne si stade Demba Diop lay koy orienté mais xam nga Sénégal nag ñun baaxoowuñu di wax rek pour wax dañu bëgg am toutes les preuves nécessaires fexe nañ dox nañ am nañ yenn résultats am nañ yenn yenn preuves yi documentation yi li ki ñu dese woon mooy le sous-préfet moom dañ koy gis suupa ok moom moo ñu dese ñu daaj waxtaan ak waa ministère des sports suñu waxtaanee ñoom ba pare ñoom ñu wax ñu leen ci xalaat su fekkee ñoom li ñuy xalaat euh, ñoom anuñ si ah dëkk bi nag ñëpp dëkk droit la dëkk bi ñun gëm nañu que c'est un état lan ngeen fas yéene def booba waaw bu boobaa comme ñun dañuy woote si jàmm nañu régler problème boobu ba pare su fekkee problème boobu réglé wul boobaa ñun dinañ am yeneen orientation yu ñu jël <laughs> da nga jàpp ni kon mairie bi waroon na mën a taxaw temm mën a jël stade bi defar ko pour commune bi waaw soo sama comme li may faral di wax sama papa la sant seen añ waxtaan naa ak moom si si cas boobu comme li ma ñun bokkuñu ak candidat yi nga xamante ni dañuy jóg di tëb di dal te ñoom xamuñu fi ñu teg seen tànk ñun ñun dañuy waxtaan ak ak ak population bi dialogue bi nañ jiital dañuy mm-hmm. waxtaan ak mairie bi mm-hmm. laaj naa ko lu jëm ci wàllum stade ma jot moom mën na ma dox na si ay jéego yu bari mais ba tey antuwul na nag ñun population bi ñu suñu jugee rawatina sunu Sicap naat bi nga xamante ni ñenn ñi ci population bi ñu ci bari ci ñoom bokk jox nañu bopp. Mm-hmm. ah amaana suñu jógee problème dina saafara te ñun gëm nañu dina saafara ndax lu ci war lépp ci wàllum wàllum wàllum waxtaan. Mm-hmm. wàllum dialogue wàllum droit. wàllum lu lu mu laaj rek. ñun pare nañ. te yéen stade bi fa la nekkoon fa ngeen doon fubalee seen nawetaan yi léegi tëj nañ ko mu indi leen gàllankoor si seen commune bi seen ASC yi di dem di wutali ba ay Pikine di fa jouer. waaw parce que tout simplement Sicap Liberté problème mu sax ay eh, jou eh, équipe yi ASC di ñëw fubal stade amatuñ possibilité boobu rek yamul rek si loolu ñun suñuy terrain ci boppam baaxul. terrain football ñi am biir dama lay jox exemple Liberté 6 extension. Mhm. ASC jant bi bi nga xam ne moom moo nekk foofu. depuis président de la république ba mu ñëwee ne bidon bidon zéro bidonville la bëgg. Hmm. ñëw tabax foofu ba cité baraka bi ñu tabax ko ba mu ba mu rafet macha allah mooy nuyu waa baraka ñi nga xamante ni moom vraiment dañ ma bëggal seen bopp taxaw ma lu ko waral. Hmm. Euh, ASC bi nekk foofu mais amatul fu muy entraîné te ASC bu mag la woon euh, foofu day mujj obligé dem ba ci camp camp Leclerc ci xam nga te xam nga ñëpp xam nañ la mooy rigueur militaire. Hmm. dañ lay euh, tegloo ay ay ay ay restriction euh, ne la lii ngay def nii nga koy defee discipline te xam nañ ñëpp xam nañu jeunes yi dañu euphorique même su fekkee wooteew ñun ci wàllum wàllum wàllum yardiku mhm. waaye dañu euphorique tey euh, si stade foofu nañuy dem di entraîner te da ngay fay pour entraîner Liberté 6 extension fii may wax yow nii li fa amul woon commencé na fa am dafa commencé salté ndax gerewuñu wu ñu bi ni mu waree ndax tey ressources yi doyul ndax vingt cinq jeunes nga jël leen ne da ngeen di bale mhm. ak tey aussi jeunes yi lañ leen di fay jeunes yi daanaka ay soixante cinq mille lañ leen di fay par weer pour ñu war a bale biir Sicap <laughs> loolu tamit dafa doy waar. mais est-ce que yaa ngi mobiliser ce mouvement bi ñuy ñuy defar itam Sicap. ah soo demee biir Sicap soo laajtee ñoom. dinañ la wax laaj naa la tontu ma rek. mais naturellement que dañ ko def te les preuves sont là que def nañ ko defati ko pour wàllum set salal Sicap ba defar yu yu yooyu noonu. Hmm. mais ñun pour ñun. que loolu noonu baax na naam nga koy def périodiquement mais est ce que nan nañuy def ba régler problème bi à la source loolu muy mbir mi te loolu il faut ñu teg ko ci kaw taal bi waxtaan ak waa SICAP mhm. ñu génn ñu jàngoro yëpp ndax jot nañuy jot ay jàngoro mais pareeguñu ci jàngoro yi mhm. ñu jeexalee ci pàcc covid 19 bi jàngoro ji mi ngi fii ba tax na Euh, vaccin bi indi nañ ko ñu ne moom mooy solu solution bi gum euh, ak euh, takku masque yi jàngoro ji tam mi ngi fi ñëpp xam ni mi ngi fi est-ce que sensibilisation bi yéen yéen a ngi koy continuer ci seen commune bi. waaw ñu ngi koy continuer parce que tout simplement même su yamul tey si jël def caravane motorisée dinañ sol suñu daal dinañ jël suñu téléphone dinañ waxtaan ak yenn jeunes yi ñuy moytu ak yu mel noonu donc ñun amuñu ci problème nee nañ ñu. nee nañu vaccin yi agsi na 3 millions de vaccins yi ñu war a jënd si si Johnson beeg yooyu yu ni mel yooyu yëpp ñun amuñu si problème su ñëwee ñu waxtaanee ko waaye man daal li nga xamante ne man maa ngi koy fàttali. Mhm. man li ma ëppal solo. mooy ndax man pour man tey réew suñu stable woon problème ay sanitaire yëpp duñ ko am. Mhm. yeneen dëkk yi états une ak yooyu yëpp wax ji wax ji wax ji wax ji stable ñu sax économiquement. suñu stabloon du ñu ñëw di def ay investissement direct étranger. kon Covid bi leçon la pour ñëpp. leçon war a xam ne que da war a am une autonomisation économique. mooy que ne tey lan nga fi dégg deux cent quatre-vingt mille ectare yoo xam ne dañ koy jël jox ko ay étranger suñu suuf gi nga xam te ñoom ñu ngi koy utiliser. plus de six cent mille hectares yoo xam te ne fi mu toll moo ngi ci table de négociation au président pour ñu mën a régler problème pour mën a jox euh, étranger yooyu ñun néewuñu benn étranger bu ñëw investir mais est que mënuñu woon dooleel population bi fi nekk ba pare. ñun suñu genre gi ak ñeneen ak ñeneen tey suñu jëloon renforcer suñu en capacité renforcer ñu yow benn benn benn benn cent millions rek soo ko joxoon benn jeune mën na la créer xaw ma ñaxta emploi man maa ngi ni euh, cent millions yooyu noonu cinquante millions yi may dégg ak un milliard yi gisuma ko même su fekkee ñoo ngi dox ay jéego pour ñu financer jeune Sika bi ah. Mhm. ak ñeneen ñi mais tey maa ngi si di emploi au moins maa ngi koy créer maa ngi joxe euh, di fay seeni salaire amoon na ma si kenn ñaar pour pourtant man am na nu ñu ma doon ñoom ñoo la jàppalee lii mais mais mais sa comme ni ñu koy waxee ñu wàcce Sénégal <laughs> te sama genre gi dañ fi bari. du mhm. ñu xaaj ñu jeex. maanaam gunge la ñuy xaar gunge ñu ñuy xaar hectares yooyu ñu ne kaay jël hectares yi. kaay leen gérer lii kaay def lii. Mhm. ay Prodac ak yooyu yëpp lu baax la mais politique inclusive bi war a am. Mhm. ci jeunes yi moo amul. loolu mooy wax bi loolu mooy réalité bi. loolu mooy réalité bi 45 nag. Euh, sa maison yi yi ñuy wax raf maa ngi koy rafetlu mais doyul. dañ ko yokk non dafa amul dafa dafa doyul parce que mënuñu am ay collectivité locale ci réew mi yëpp hmm? mm-hmm. fenn fu nekk ñu waroon ko fa mën a tabax ndax état am na moyen yooyu su ko tabaxee proximité day am waa Sicap soxla wu ñuy dem parce que da xam maga kii bi maison bi fa lay nekk mën na nekk ñu ne la dakaar rek département de Dakar yaatu na Pikine ngi fi Guédiawaye ngi fi Pikine Nord dañ ko war a defar yeneen xaw ma moom laa lay wax Pikine ngi fi Géejawaay ngi fi ainsi de suite waaw lan moo tax ñu def ko Pikine parce que ministre de la jeunesse Pikine la dëkk Géejawaay Géejawaay waaw mais Pikine ak Géejawaay benn am na yoo xam ne daal war nañ ko xoolaat man sama Saliou euh, émission bi daanaka jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi ak waa surtout waa SICAP waaw euh, maa ngi euh, nuyuwaat bu baax waa Rewmi FM ndax defe naa fii moom sama kër la Euh, di remercier waat waa Sicap Liberté bu baax ci confiance bi ñu ma jox di leen xamal ne que ñoo ngi ñëw fan yii néew. Mhm. ñoo ngi wàccaat sur le terrain ndem mosuñu si jóge sax. Mhm. mais de manière continuelle cette fois si ndax Covid bi tegg nañ ko daanaka état d'urgence bi. ñu ñaan mhm. yàlla feebar bi jóge fi. di leen wax ne que nañu préparé parce que naataange Sicap bi nga xamante ni ñoo ngi koy lancé euh, très bientôt. li jëm ci wàllu centrale d'achat bi mutuel d'épargne euh, et de crédit ak mutuelle de santé bi suupa mhm. ñoo ngi ñëw waxtaan ak yéen mhm. jox leen carte membre yi su ko defee ñu mën ci liggéey ensemble mhm. SICAP daal di naat ndax njott nañu loolu kase day naatal SICAP ndax ku régler problème santé boobu régler problème social régler problème euh, alimentation ak wàllum gafe gi la nekk ah defe naa ni soo réglé problème yi à ah, cinquante pour cent réglé nga problème yi donc ñoo ngi leen ci woo daal ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. jokk euh, dig daje mbokk yi beneen dimanche beneen invité fii ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM jërëjëf.